جوان الشيخ عبد الله بكر مسنا في أمي أك ما قال توبا جيبسي أمي بغى دفع أي أورغانيزاسيون دي واخ دا ني بغى يوخو بريستان عبد الجيب في نون بوكو شيخ شيخ عبد الله بكر جيجي دجا جيل اي ديسيون يور واخنا كيف كوكو يوخو دا نغا يوخو كو مان يوخو ناخ سما غنا كون لور لا شيخ محمود منتخب فدلي كون لولو سيرين بي نين مي كو خمال ييب